parce que man bon franchement Ahmed Khalifa Niass mosul jubook jubóog Sidi Lamine Niass. mais xalif général lew na bi wax na nañ ko delloo. waaw mais dañ koy ñëpp ci même man je demande même man même même man je suis sii di man mooy sama bàyyi ci lii ñuy def ni communication l'héritage si Cheikh Niass ëppale wuñu ci Walfadjri et ñun on va se battre pour Walfadjri jusqu'à la mort. comme ni ko ay euh, Moustapha Diop di defee ay Birame Wathie ay Pape Sané ñi ma fa gis Walfadjri ñëpp ils sont des enfants de Sidi. mais nag peut doom ji Cheikh. Euh, def na erreur man de je man de pardonné naa ko. Cheikh Niass moom. li dal ci euh, kawam li dal ci kawam nit day juum def na erreur juum na xamuñu ku ko nax yóbbu ko ci ay affaire may may affaire Amadou Ba boobu wax ci. dañ ko piégé Cheikh Niass a été piégé pour mmh. l'affaiblir pour mun ko songu. Mhm. lundi passé naka nga dundee journée bi euh, toog seetaan député yi de onze heures à vingt deux heures bi gendarmerie di dugg affaire naka nga jàngatee. non fin de fin de règne rek. fin de règne lii bon dafa ñaaw mosul am fenn ci daanaka lii fii ñoo Macky Sall ni mu ñu. Euh, ni mu ñu toroxalee sax dafa ëpp quoi dafa toroxal réew mi quoi. ma Macky Sall moom fi mu yóbbu réew mi ci démocratie non c'est c'est un désastre quoi yow nga jot un bijou bien bien bijou la jot Macky Sall li li mu jot nii mais suñu bàyyi dañ cee laisser un tribut moi je dis que mon père a été torturé emprisonné à Djunkuré Tamba. benn rein la sam papa dundee ba keroog muy dee parce qu'il a été emprisonné joxuñu ko ndox bu doy ba mu ñàkk benn rein insuffisance rénale opéré ko dagg benn rein bi sànni ko benn rein la dundee ba rek muy dee sam papa daj na loolu ci Sénégal te sam papa papa c'était un ingénieur généraliste chemin de fer saa yu liggéeyul waan saxaar gi day panne moo tax heure bu ñu ko tëjaan. Mhm. du yàgg ñu tijjiwaat ko delloo ko ci postam parce que euh, au lendemain des indépendances y avait pas beaucoup d'ingénieurs paa bi mhm. jàngewu fi sam il est formé en France nekk ingénieur généraliste ñibbi si soxalul dara ci alal. Mhm. moom paa bi xeex rek jël ay alalam ay. jarbaatu Maodo Sylla la sama maam Absa Sylla doomu bàyyu Maodo Sylla la imam mm-hmm. ratib bu Dakar. Mm-hmm. ñun on a des terres ici à Dakar yu paa bi bazardé def ko ci politique. Mm-hmm. Ah, loo xam ni bon ñu man de alal gondiwuma waaw ah, man j'ai reçu un. parce qu'il y a des députés yi nga xamante ne on nous a montré des vidéos ñoo xamante ne. Euh, noonu lañ toll rek. ci ginnaaw ñoo doon wax Macky dégage. non non léegi nii ñoom fi nekk euh, di dal ci kaw Macky naan ko Macky réew mi nag mooy defaru ah réew mi mooy de réew mooy sangu. li ci mm-hmm. Serigne Cheikh waxoon faaw mu sangu quoi réew mi nag. et puis voilà merci beaucoup man euh, am na sarax bu ma wan ah. bi may ñëw def naa ko. Mm-hmm. sarax joxe woon naa fi sarax boobu te defaat naa ko ko ban la xoolal soow mu neex mooy mooy soow yi ñuy jaay ci. Euh, boutique yi ci sachet yi ci waaw bëgguma ko publicitaire gars yi nanu leen fay ma publicité beneen yoon ma ba wax kii nan leen fay de suñ ma fayee ma wax ban soowa ci daal mm-hmm. waaw jënd naa ci nag mm-hmm. euh, soow yu day saf sucre euh, vanillé mm-hmm. neex trop ñuy dugal ci bay di ko jaay ay mbuus deux cent cinquante jënd naa ci sept comme li mu jëy suñ trois cent treize 3 1 3 mooy limu victoire on walla la victoire. mais li tax ñu digtal ma sarax boobu. Mhm. waxoon naa ni nanu génne sarax boobu pour que réew mi sedd. neex transition démocratique bu benn njarum soow. Mhm. suñu bëggee waa ji nooy nepp. waaw kooku moom na ku soow. mu neex quoi euh, euh, soow sucré. Mhm. nan ko jox buñ ko jox seen doomi de. ku ko jënd bu ko jox sa jarwaat bu doom génnal ci génnal ci mbedd bi les enfants de la rue la jox yu tilim yooyu di jàng alxuraan mhm. voilà ñoom euh, ñoom seen wàllu bopp euh, man jox naa leen ci set tey te duma ko digal quoi pour que mhm. pour que réew mi mhm. euh, pour qu'on ait une bonne transition démocratique calmement sarax la bu ma digal digaloon naa ko fi nii leen su ngeen bëggee Macky Sall nooy libéré gars yi ci prison yi. du jàppate gi du bareek yooyu. bon man sax bon yàllaa xam fu may mujje ñu def ko réew mi dana am jàmm dana dal quoi. Mhm. waaw sarax nag moom suñ la ko digalee. Mhm. Euh, il faut faudra le faire te su fekkee ni le temps li ci des bariwul. Mhm. Oh. Ah, là là juste je vous rappelle que vous êtes sur digital tout à l'heure xam naa juste dama leen di bàyyi ngeen jël kafeek yooyu noonu damay dalalaat fii vingt heures pile bu soobee suñu borom saa wolof ak euh, Al Amine Dramé bu ko defee ñu waxtaanee waat li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi Euh, gën a xuus ci actualité bi tonton Mody day ubbi rek tonton Mody il est exactement 19h18. ok waaw 19h euh, 19h30 euh, la ñuy kii.